yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàng mi ak ñett yàlla woona samwil nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la fukki nit ak ñaar ñi demoon xooli kanaan wax ca réew ma wax nañu ne réew ma naat na lool waaye ay ponkal ñoo fa dëkk ñaar ndax waa Israyil gëmoon nañu ne yàlla dina leen dimbali ba ñu moom kanaan réew ma leen yàlla dig déedéet ñett naka la leen yàlla attee yàlla wax na Musaa ñi am ñaar fukki at wala lu ëpp ci waa Israyil yi dinañu dee ci màndig mi ba mu des Yosuwe ak Kaleb ñeent nakala la yàlla nit ñi bi ñuy jàmbat dafa yónne ay jaan ngir ñu màtt leen juróom lu tax yàlla defarloo Musaa jaanu xànjar yàlla wutal na ñi bàkkaar pexe ngir ñu mucc juróom benn lu tax yàlla téye jant bi bi ko ko yosuwee yosuwe gëmoon na yàlla te déggaloon na ko kon yàlla nangu na ay ñaanam bind mu sell mi nee na ci benn samwil saar ñett aaya benn ba aaya fukk bi loolu amee ndaw la samwil sax ci liggéeyu aji sax ji fi kanam eli te jamono yooyu kàddu aji sax ji néew na te peeñu du ñu faral di am am bés nag eli tëdd ca bërëbam fekk ay bëtam di tàmbalee lëndam te mënulu gis lamp bu màggalukaayu yàlla bi feyegul te samwil mu ngi tëddoon ca biir màggalukaay bu aji sax ji fa gaal gi misaal jataayu yàlla nekk noonu aji sax woo samwil mu tontu maa ngi te mu daw ci eli ne maa ngi ndegam yaa ma woo eli tontu ne wootewuma delul tëdd noonu mu dellu tëdd aji sax ji delluwaat woo samwil te samwil jóg dem ca eli ne maa ngi ndegam yaa ma woo eli tontu ne woote wu ma sama doom dellul tëdd fekk na booba samwil xamagul aji sax te kàddu aji sax ji musu koo dikkal aji sax delluwaat woo samwil ca ñetteelu yoon ba samwil jóg dem ca eli ne maa ngi ndegam yaa ma noonu eli xam ne aji sax ji moo doon woo xale bi te mu ne samwil demal tëdd te bu ñu la wootee nga ne aji sax ji sa jaam laa waxal ndax maa ngi dégg noonu samwil dem tëdd bërëbam aji sax ji ñëw daldi taxaw te mu wootee ni ci bu jëkk ne samwil samwil te samwil tontu sa jaam laa waxal ndax maa ngi dégg bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla woo na samwil nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla woowee samwil ganaaw ba yosuwe deewee waa israyil amatuñu woon njiit lu boole yili fukki kër israyil yi ak ñaar askan wu nekk doon na def li mu yaakaaroon ne moo gën ci moom léegléeg léeg waa israyil fàtte yàlla tey topp ay xërëm niki yeneen xeet yi dëkkoon ci kanaan saa yu waa israyil daan topp ay xërëm yàlla àtte na leen te bàyyi na seeni noon daan leen noonu waa Israyil doon seeni dak loolu xew na yoon yu bare ndaxte waa Israyil doonuñu jóg ci fàtte yàlla ak di jaamu ay xërëm saa yu waa Israyil tuubee seeni bàkkaar yàlla tànn na ci seen biir ñu màndu ñooñu jiite leen ngir ñu daan seeni noon nit ñooñu yàlla doon tànn ngir ñu jiite Israël ñu ngi leen doon woowee njiit yi wara nañu jiite waa Israël ngir ñu topp yàlla ci jamono yooyu amoon na ay njiit yu bare sereyon debora barak yefte samson ak samwil ay njiit lañu woon yàlla tànn na ci waa Israël ay yonentam kenn ci ñoom moo doon samwil loolu yàgg na aana yaayu samwil amul woon doom laata samwil di juddu jëkkëram góor gu baax la woon te bëggoon ko lool waaye aana amoon na naqar ndaxte amul woon doom bu jëm moom amoon na ay doom yu bare at mu nekk daan nañu dem silo ca màggal ga elkana jëkkëru aana bu musaan saraxe ba noppi dafay jox yàpp ay jabaram ak i doomam waaye aana yàpp wu néew la daan am ndaxte amul woon doom wu jëm daan na ko ci ñaawal mu am ci naqar genn ngoon aana dem ci mbaaru màggalukaay ba ngir ñaan yàlla ana ne borom bi soo ma mayee doom ju góor dinaa la ko jébbal mu liggéeyal la giiru dundam eli njiitu sëriñ yi gis ko yaakaar ne dafa mandi bi ko aana waxee ne dafay ñaan eli tontu ko na yàlla nangu say ñaan ana gën ak mbégte daldi ñibbi yàlla dégg na aana gannaaw gi ana jur doom ju góor mu tuddee ko samwil muy tekki ñaanu yàlla bi samwil nekkee xale bu ndaw ana yóbbu ko ci eli ma doon njiitu sëriñ sa samwil nekk ci eli di ko dimbali ci mbaaru màggalukaay ba at mu nekk ana doon na indil samwil mbubb mu mu sol eli barkeel ko te ñaan yàlla mu may ana doom yu bare ana amaan ñetti doom yu góor ak ñaar ñu jigéen genn guddi yàlla woote ne samwil samwil samwil yaakaar ne eli moo koy woo mu daw laaj ko lu xew ba mu ñetti yoon noonu eli xam ne yàlla mooy woote eli ne samwil mu déglu li yàlla di bëgg a wax yàlla wax samwil ne dina daan doomi eli yu góor yi ndax seen mbon waa kër eli dootuñu doon sëriñ samwil màgg nit ñi di ko déglu mu doon ab yonentu yàlla ci jamono yooyu waa israyil ñu ngi doon xeex ak waa filisti te waa filisti ñoo daan jël ndam li samwil wax waa israyil ñu wàcc seen yàlla caaxaan yi ak seen xërëm yi te topp yàlla rek su ko defee yàlla dina leen musal ci waa filisti noonu ñu sànni seen xërëm ya di jaamu yàlla rek ganaaw loolu waa israyil yépp dajaloo ñu woor samwil saraxe am xar ba noppi ñaan yàlla mu dimbale leen noona rek waa filiste ya songu leen yàlla jibal dunu gu mag mu tax janaxe ñu réer noonu waa Israyil dàq leen rey ca ñu bare waa filisti songatuñu waa Israyil ci dund Samwil Samwil doon njiitu Israyil muy wër ci biir réew mi ngir atte ñi bi Samwil demee ba mënatul doomam yu góor doon njiit yi waaye njiit yu dëng lañu woon noonu waa Israyil wax Samuel ne dañu bëgg fal buur ni ki yeneen réew yépp Samuel meroon na lool waaye yàlla ne ko du moom yàlla ci boppam la waa Israyil dëddu yàlla wax Samuel mu artu nit ñi ñu bañ a fal buur waaye dégluwuñu loolu ñu ne buur rekk lañu bëgg fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan moo daan dal waa Israyil saa yuñ toppul woon yàlla tey màggal ay xërëm di toppandoo yeneen xeet yi leen wër yàlla daan na bàyyi seeni noon duma leen ñaar lan la waa Israël daan am bu ñu toppee yàlla yàlla daan na tànn ay nit ñu màndu niki ay njiit ñuy dimbali waa Israël ngir ñu duma seeni noon ñett lan la ana ñaan yàlla doom ju ñeent lan la ana dige ak yàlla ana dige na ne su ko yàlla mayee doom dina ko ko jébbal juróom lu tax yàlla def samwil wuutu eli ci kaw doomi eli ndate samwil nit ku màndu la woon te doomi eli nit ñu bon lañu woon juróom benn lan la waa israyil wax samuel mu defal leen ko wax nañu samwil mu falal leen ab buur juróom ñaar lu tax loolu neexul woon samwil ndaxte yàlla mooy buur Israyil waruñu woon tànn nit mu nekk seen buur nangootuñu woon yàlla doon seen buur moom rekk yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla kenn la amul morom waa Israyil jaamu nañu yeneen yàlla ak ay xërëm waaye yàlla yooyu dimbali wuñu leen yàlla dafa jub yàlla àtte na leen ba ko toppul waaye aar na leen ba ko toppee yàlla boroom doole la yàlla wax na samwil ci gént li xewi yàlla gëlëmal na xarekat yi filisti yi ngir waa israyel duma leen gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla may na aana doom bi mu ko ko ñaanee yàlla aar na israyil ba ñu ko toppee yàlla bëggul bàkkaar bi waa Israyil toppee yeneen i yàlla yàlla bàyyi na seeni noon duma leen yàlla daan na ñaari doomi eli ndax seeni bàkkaar beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla tànnee sool mu nekk buuru Israyil